mbirum suite beauté ànd ay conséquence yu bari lool daanaka bokk na ci dundinu nit ñi askan bi ñu fekk fii ci marché sàmm di àddu ci procès bi nga xamante ni amaloon nañ ko démb. ñu gis gàllankoor yi mu indi ci dëkk bi nga xam ne kon. Euh, indi na ay jafe-jafe yu bari ci euh, dem beeg dikk bi ak côté liggéey bi ndax boo dee gis ñu bari démb liggéeyun ñi ñi doon liggéey dañ doon daanaka mën naa ne dañ doon sacrifier seen bopp. procureur de la république moo ngi sàkku ñu teg ci ndodd kii di usmaan Sonko fukki atu kaso mu nekk réquisition bi nga xamante ni ñépp bokkuñu ci gis-gis. munul warul nekk quoi ndax buñ ko tëjee man sama sama gis-gis buñ ko tëjee. yëngu-yëngu yi day amaat rek day amaat rek man suma ma sañoon naa lii ñu teg ko si suuf quoi. xam nga fii dañu am ku ci jiitu day am si tamit ku nekk derrière ñun mënuñu wax ji dara ñun mënuñu wax dara tant que aussi tamit président moo att atam wala juge moo att attam ñun aussi tamit amul lu ñu def xanaa nekk ci ginnaawam. lenn daal lañu ñu mën a jàppandi que ñëpp ànd na ci te itamit sàkku nañ ko mooy jàmm. ndax procès bi yàgg na lool amal na leen conséquences yu bari lool rawatina ci wàllum koom-koom ci fàttali 1 juin bi ñu digmal la àttekat bi di délibéré ci bile mbir